dàq bi ñu dàq candidature bu Karim Wade metti na lool ci waa parti démocratique sénégalais nekk na itam mbette la ci ay sénégalais yu bëri bu ñu sukkandikoo ci Assane Samb nekk analyste politique bi le scénario kenn xaaru ko woon. Euh, xaaruñu ko woon ndax bi ñu dégloo analyste yi ñuy xam droit français dañ boo renoncé attaque ta candidature six mois après c'est enregistré te buñ ko enregistré mooy am na. mais teewul renoncement bi Karim il paraît que defoon na ko lu yàgg. 2019 peut-être donc à kon ñun dañoo jàppoon ne eh, effectivement double nationalité bi jeex na. tax ñu jàppoon ne candidature waroon nañ ko mën a valider. PDS fas yéenewul jongante ci élection présidentielle yi di ñëw bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi lii nag doon na njuumte bu rëy ci parti bu ni mel war a dem ci ay élection te amuñu beneenub candidat. boo amul roue de secours boo crevé da ngay am problème équipe boo amul remplaçant bu joueur blessé wala mënatul jouer. Eh, ñu carton rouge kool yooyu day nekk problème te loolu nag seen responsabilité la parce que tamit nu mën di demee rek danga war a am un plan B ba un plan C benn candidat doyul mais da ngay postuler euh, am beneen deuxième candidat s'il le faut par expérience daloon na leen deux mille dix neuf amuñu candidat deux mille vingt quatre am candidat mais parti bi day gën a sooxee day gën a néew doole. wante Assane Samb di xamle ni parti maître Abdoulaye Wade nekkoon fi njiitu réew dina bay waram ci élection yi di ñëw ndax mën na yokk doole ci ñi nga xam ne ñoo di wàkku jéggi. PDS faiseur de roi lay doon c'est-à-dire que désormais ku mu soutenir rek da ngay am poids loolu aussi bu soutenir opposition comme ni ñu ko waxee. opposition boobu day gën a am poids mais ça dépend de quelle opposition. yooyu ñoom dañ koy négocier du nekk soutien boo xam ne soutien gratuit lay doon soutien négocié lay doon soutien la boo xam ne ay dañuy teg seen i conditions bis boo faloo nangam ak nangam noonu lay demee te donc ñëpp dañu daal di compter ci PDS. ci loolu élection présidentielle dinañ ko amal te benn candidat parti démocratique sénégalais du ci bokk Karim war ñu génnee ko ñaar fukki candidat ñoo fas yéene jongante ñaar fukki fan ak juróom ci weerum février.